asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokki réew mi mbokki téléspectateur bu 2STV ñoo ngi am ci yéen mbégte bu baax a baax tey am ci yéen kontaante lool sunu xol ngay sedd ci yéen yéen nga xam ne bi ngeen jàppeeg léegi mi ngi bëgg a yàgg te bàyyiwu leen benn yoon kenn amul seen fay yàlla mi yor pay yàlla na feel boppam waaye c'est l'ambassadeur de Sovrano c'est le la 2STV de Sovrano lu doyul sama xarit baa ngi noonu tubaarkàlla cameraman mag baa ngi noonu nee naa ko yow saa boo ñëwee ci 2STV yi Gouy Pro rek jàkkaarloog yow sama xol day féex sama xol day sedd guy ndax damay xam ne nag tubaarkàlla li ma bëgg ah tubaarkàlla dama koy mënee ci yow ndax ndaanaan nga waaye rek ma yëgal la tey foire bi dina metti dina yàgg dina tàng te dina neex ndax nee naa la Omaro mu Cheikh Béthio bu ñëwee ci émission cant gi yoon la waaye neenaa naa la Omaro mu Cheikh Béthio bu ñu ko woowee ci luy doxal réew mi ci wàllu ci wàllu événementiel wala ñu woo ko ci luy doxal réew mi ci wàllu culture ci wàllu cosaan yoon la kon tey fii ñu ñëw tubarkàlla muy foir de Dakar lu am solo daf fee xew mu ci gërëm bu baax a baax waa Siscom waaye waa teel production sama PDG Matar Diop Subatel waaye di gërëm bu baax a baax la 2STV ndax liggéey bu am solo bi ñuy def ci foiru ren bi tubarkàlla foire gëj naa gis liggéey bu nu mel la 2STV kenn ci yéen moomoo moomoo Subatel sama xarit sama doomu ndey da ngay dund da ngay wér loo dund doyul doom ndey eh Pape topp ma maa bëgg nga topp ma ñu def yëfi Baye ndax xam nga man Baye man Baye Fall laa te tey sama ay mbokk baay Fall laa dalal te du yomb day metti day yàgg day tàng day neex damaa bëgg nag balaa day xew ñu doxantu man naan kafe gu tàng jër il faut que man naan kafe non parce que dama gis dama gis sama ay noonu kaay kaay ba papi kaay taxawal eh taxawal kii kii moo yor programme mu 2STV kii mooy Françoise moo yor programme de 2 bi sama noonu la man la bañ moog Aïssatou fu ñu ne ñu ngi yàq sama der ak di ma toroxal François ngi ne Aïssatou ñu ne Aïssatou yor commercial bi kii moo yor programme bi ñii ñooy sàcc xaalisu Alaaji Njaay bi Alaaji Njaay bu amul dërëm ñaar ñee tax sàcc yu bon ñu doon tekkiwu leen dara Pape Acha fii ci loo ne ah mais ñoom xaman nañ ne danaa fayu ñoom xaman nañ ko mais Zé Event mais kooku suma xarit la suma xarit suma doomu yaay Zé Maria mais Zé nama naa la. Zé ci loon ne. sant yàlla wér waay. mais yaa ngi ci forme de mon. non maa ngi ci forme a baax. mais mais mais mais yéen di ngeen di athlète di foire di feetu di jënd di jaay. non ñu lépp la ñuy def lépp. ànd ak waa lan nga yëg tey. waaye tey dama kontaan ànd ak sama doomu ndey Matar suba teel moo waral ñëw bi xam nga moo waral ñu tëj suñuy saal ñëw fii indi saal bi toxal saal fii nii dafa finance ak gars yi xam nga waaw. yéen a ngi ci jàpp baa xam ngeen ne lu ngeen ci def seen réew ngeen ko defal aada ak cosaan dafa bokk ci luy dundal réew tey kenn warul toog di xaar ñu wala ci lu nu mel tey kuy nit ku baax rek wala ngay as gor wala nit koo xam ne sa réew wala ñor luy doxal sa réew wala ñor waaye luy doxal sa culture wala ñor da ngaa war a ñëw takk sa ndigg laxasaay jàpp ci takk ci rip waroo xaar kenn ku la ci wo non mooy li ma fa di wax rek ñu dañu nekk ay ndaw te li ma fa di bi ñu gisee ndaw boo xamante ne dafa nekk ndaw boo xamante ne yemale ñëpp am jom am fula lépp. moom lu mu am yéene na ko nit ñi kon ñu dañoo war a takk suñuy tàngu tubéy di jaayante def ko référence man tay Matar moo waral moo moo waral suma ñëw tey sama saal laa yow dama ko tëj sama saal dama ko bàyyi noonu ñëw ndax jaral na ma ko saay bi laa tuxul ñëw boo seetlee élèves yëpp ngi ñëw ku ci nekk ngi ñëw ñëpp coach yee ngi fii ay coach professionnel non tey fii la am naa fi ba pare mu jox ma trois jours jox ma vendredi samedi dimanche xam nga. Zé loo dund doy. non yow loo dund doy rek Matar. <laughs> kontaan naa kontaan naa Papa Dieng da may topp rek ñu naan ceeb yi parce que dégg naa ne fii moom sama gars yi ziar naa leen na def bàyyi yéen a ngi si jàmm yéen a ngi en direct sur la 2STV ci émission bu mag boobu nga xam ne mooy émission cant gi papi bu ñu nee cant nag ne café Touba yoon la bu ñu nee cant ne ataaya yoon la waaye bu ñu nee cant na wasalit yoon la ma bëgg nag madame tubarkàlla nga xel ma ci café gi kafe gu saf-saf ma naan waaw daal di bégal sama xol bi bu a baax a baax doog a jàll ci plateau ba nag yëngal cant gi. waa café Touba laa bëgg waaw café Touba bu saf damay naan sama caméraman day naan abba ah, bi waaw lu baax du doy tubarkàlla maa ngi am mbégte maa ngi am kontaante bu baax a baax lii mooy réew mi c'est ça le Sénégal lii mooy Sénégal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaye ma yëgal leen ne yéen téléspectateur bu 2STV di ngeen bég ndax la 2STV c'est la télévision autrement waaye télé la boo xam ne kàll macha allah yitteem yéeneem jubloom pexeem du matin au soir mooy ay soppeem di bëgg du matin au soir mooy ñi ko bëgg ña ci moom yaakaar waaye ñi ko doyloo di am kontaan di am mbégte di am xol bu sedd tubaarkàlla macha allah xam ngeen ne chaîne bii la 2STV tegal leen fi ay programme yi am fi am waaw ku ci mel ni tey jii nga xam ne maa ngi wax ak yow tubarkàlla ku ci mel ni maam góor jasaaka dana fi jaar waaye ku ci mel ni galas dana fi jaar ku ci mel ni tamit yeneen i artistes tubarkàlla danañ fi jaar jërëjëf soxna si yàlla sa jàmm yàgg ku ci mel ni ñoom galas yeneen artistes yu bëri danañ fi jaar tey wane seen bopp def seen i maniñ def seen i yëf tubarkàlla daal di falaale daal di sànnee ko waaye su ma nee artistes yi sama xel day dem ci sama doom sama xarit kooku c'est mon fils Sidi Diop gars yi ma yëgal leen la Sidi Diop suba moo yëngal fii seen bu mag bi ngeen gis papi jëlal ma seen bi gars yi xool ko gars yi seen bu mag bi ngeen gis suba sama xarit sama doom Sidi Diop moo koy yëngal tey nag tubaarkàlla papa salaam dina ko yëngal maam góor dina ko yëngal ak yeneen i artistes waaye suba Sidi Diop a koy yëngal Mbaaco Ndiaye koy yëngal ah Mbaaco Mbaaco loo dina doyul sama xarit sama jigéen ak ratu Mbaaco Ndiaye bu baax mi ah borom vitrine chez Mbaaco vitrine chez Mbaaco nag moo xew jamono ah ku bëgg yëre yu baax ak dàll yu baax dem seeti Mbaaco Ndiaye mi xew ki jamono doomu yaay Milisa doomu yaay Maguette Ndiaye doomu loo dund doyul et eh, bi topp ma nag ci cant gi day door waaw cant gi day door da nga may ñëw topp ñu daal di doxal ju ma dem xool sama mbokk Baye Fall yi lu ñu ma indil Papa Kara Papa maa ngi lay ziare. bu wér Omar maa ngi lay ziare maa ngi lay bëggee. delloo bu ah, wér ah tubarkàlla je en direct sur la 2STV ci émission bu mag boobu nga xam ne mooy émission cant gi. papa nee naa la cant mooy développement moo gën di investissement moo amul pertement sant yàlla rek a wóor sama mbokk Baye Fall yi maa ngi leen maa ngi leen di bëggee bàyyi yéen ngi am jàmm wax amul dara xewul damaa bëgg balaa tàmbali ngeen may mu lu dëgër ci Ahmadou borom jaam gi Sëñ Bamba ngi doo ko tàmbali waxtaan bi aca bismillah laa ilaaha illallaah sayduna mu jàmmalo moo nuyee ah la ilaha illallah sayyiduna mu jamalo mo nuye bismillahi fil maxal lay netale den kub rasul ma mare la la la la bam tàggatoog maas bun jabel lañ ko yabal réewi gemaan mama réew denkum baa faatuk rasul tiisam ga tay laa fi misaal mama réew yaa ngoog maas nga ci misaal te boo maas nga yamal ma mareem waaw salaatu du ati la fi saaba yëpp a teew maas ndeysaan waaw nit ak jinne teew mu taxaw ne soxla naa ku dem yaman ma mare المهاجرة وأهل الأنصار ترى ممر لا لا لا سيدنا جبريل مونا روخرا ne yàlla ne yablel yaman mamare moo tax ma xëy tey ji ne leen yaa masaral muhajirin mamare lansaar yi kum ci mën a doon tey soxla ku dem yaman mamare Usmaana Jóob ibnu Afaan ma tax ñu jot ci alxuraan sange mamare ngir kersa gaak la muy gorom mbay xam ni moom du dem yaman mamare ababa karanja ka gëm jébbal ko doomam tey gërëm baay sa dee الحسن أبو الحسين والحسن بامبنا باب العلوم والختم أبو الشراف الأنجم بامبنا الكرم عليه المعظم بابنا مرتلي دار سمسم ماخي العزا والوجم بابنا اليوم الخسل لنا أمان من وجل بابا نينا ومنانا إن وخجل ومن جوان وندم بابا نينا Salim Touré islam yaa ko murtaja rabbi wa babulaye hilam ya gon murtaja waay waay ooy lay la wa baabu laay ñoo ngi dagana ca Mustafa ñoo ngi dagana ca Mustafa ñoo ma nekk marwa ak safa ak xaqi am di la Mustafa mi yàlla jébbal xarnu bee ak ak seen baay nu am ak ak Seex ya Bamba am ndax yàlla naatal xarnu bee te sag njaboot taawoon ngi loot ñu def ma ab antal bareet may lampoto a xarnu be waaw jooyu perantal lanu jooy jooyu fabul leenu na wooy bonu yafal bana defe koy mu dellu naata tol ni marwaatal safa ndax yàlla naatal xarnu be ay waay looy lay la la ay waay jamono jaangi xiifa xiif luñ togg bar gi ne ko fuuf Cheikh Bamba neel gën ji mi neef mu dellu naatal xarnu be tax na gor bi geesul xarnu la laay waaw kooku mooy prince sama rakk jaa ngi noonu tubarkalla xale bi man maa ko bëgg nee naa ko ñii tëgg xiin ci réew mi duñu jeex waaye fexe nga ba bu nu nee xiin xel yëpp dem ci prince yàlla nga dund taalibe sëriñ Axma Kara baa ngi nii yàlla sa jàmm yàgg sama rakk ji loxo bi yàlla gën a wér bég naa ci yow lu baax bu doon doy doy na bu yàgg ndax bu reer doon doy reer yi daaw yi doy te ba tey ñu ngi reer tubarkàlla macha allah newoon naa la su ma ñëwee mu gën fee neex newoon naa la bu ma ñëwee mu gën fee riis waaye ne woon naa la bu ma ñëwee mu gën fee baax Papa Kara lii nga ma bëgg léegi sañ Bamba balaa maa xuus ak yow ci waxtaan dama koy teralee sëtug sëñ Bamba ndax alalu sëñ Bamba daa delluwaat ci sëñ Bamba kooku mooy sëriñ Mamor Mbacke sëriñ Mamor Mbacke mu sëriñ Mënumbe Xabal mi sëriñ Mamor Mbacke mu sëriñ Abibu Mbacke sëriñ Mamor Mbacke mu Touba Mbacke sëriñ Mamor Mbacke faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boromam mu ne waaw te dafay dimbalee ci lu gaaw balay sa buri sëriñ Mbacke ak maaram maam jaarami ci poroxaan xaadim borom nit ñi Ahmadou balay sa loo dunu doyul yàlla na sa jàmm yàgg kooku mooy sëriñu soxna kat yi waaye mooy sëriñu sëriñ Moustapha xam sa diine sëriñ maam Mor Mbacke mi ci kurus bi waaye yow bettoo ma bettoo ma bettoo ma ndax sa maam sëriñ Manoumbe Mbacke keroog ba sëriñ Bambay tabax di taxawal jumaa jooju nga xam ne mooy jumaay njaarim sa maam a njëkk rek ci téeméeri junni jëf ci sëriñ Manoumbe Mbacke. waaye keroog gi tubarkàlla macha allah bi sëñ Bamba di jox sa maam secret Faatiya Falax ak Naasi ne ko jox naa la ko yow sëriñ Manoumbe Xabaan loo ci yàlla def ca ah tubarkàlla la ca maam sët a koy doon tubarkalla la ca moom si te koy doon wàllu wëy na gisatuñu sëriñ Mandumbe Xabaan waaye wóor na ma ni la sëñ Bamba ca moom ca baatin mi ngi ci sëtam bii di sëriñ Mamoor Mbàkke mu sëriñ Mandumbe Xabaan balay si loo dunu doyul yàlla na yàlla guddal sa fan te wéral say cër bu baax a baax jàmm ci yow tawféex ci yow dund ci yow gudd fan ci yow wér ci yow ndax yow njariñu réew mi nga yow yokkute réew mi nga yow tawféexu réew mi nga yàlla na nga fi yàgg te wér Papa Kara ma yëgal la ne ki fi jaar tey nag balaa maa dugg ci waxtaan bi ak yow mooy Xaadim Saar kooku mooy xaadim borom lan saar broderie xaadim borom lan saar broderie nag moo ma génn fii tubarkalla sama rakk ji ma def nii def ba mu baax xaadim borom lan saar broderie mi ngi fii rek ci parcelle incha allah bi boo fa bëggee dem boo ñëwee ba ci sapeur pompier bi rek. boo fa taxawee boo wootee ci numéro bii ma lay jox ah xaadim da lay jël si immédiatement sur le champ ñu dagal la nag yu baax yi ay ñawu góor nga fa ay ñawu jigéen nga fa lépp nga fa xaadim saar borom lan saar broderie loo dund doyul yal na yàlla guddal sa fan tëbëre sa cëru baax a baax dinaa joxe numéro bi léegi bu Babacar defee deuxième morceau bi ba ma retourné waat ca laa lay jox numéro bi waaye jantal Mara Serigne Mara Seck kooku Serigne Mangoone Seck mooy baayam soxna Gaye mooy yaayam jantal Mara Serigne Mara Seck loo dund doyul Serigne Mara Seck yàlla na sa jàmm yàgg ndax nit ku baax des koy bàyyi ci réew waaye kuy dimbali ay doomi aadama ci wàllu social kuy dimbali ay doomu aadama ci wàllum paj waaye dimbali ay doomu aadama ci wàllum ñaan ak ci wàllum kurus ak ci wàllum baatin kooku dañu koy ñaanal mu yàgg fi téwér sëriñ Mara Seck loo dunu doyul jantal Mara ñàkk laa xam erreur la waaye naar yee xam sa cër yow tubaab yee xam sa cër suñu réew mi di réew ak Sénégal dañ laa desee xam ndax da nga leen nëbb sa bopp waaye ku dem Dubaï laajte sëriñ Mara Seck ñun la ñoo ko xam ku dem Angleterre laajte sëriñ Mara Seck ñun la ñoo ko xam ku dem Amérique laajte sëriñ Mara Seck ñun la ñoo ko xam kon jantal Mara loo dunu doyul yàlla sa jàmm yàgg Pabakara nuy naa la. maa ngi lay fay. sama rakk ji maa ngi am ceew mbégte maa ngi am ceew kontaante bu rëy ak xol bu seddu guy ci nii nga ma teralee ci Ahmadou borom jàmm ñi papa ma bàyyi la nga nuyonteeg doomi réew mi ak doomi bitim réew ñi lay seetaan nga saafanteeg say soppe ñu doo ko tàbbi ci waxtaan wi. di wax aouzu billah bisimilah inna waliyallahu jërëjëfe borom Touba. Mm. jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni di jiital ci nuyoo bi xalif général kullu murit muy Serigne Mountakha ak xalif général kullu Baye Fall Serigne Cheikh Jëmm Fall. dëgg la di ci di ci jiital tamit suñu buntu ci Serigne Touba di Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni ak njabootam ñëpp kon commencé ko ci borom baax ba jëm ci suuf mhm. di ziar ñëpp di ziar nag fi ma jóge mhm. Bambilor di ziar suñu maire mooy Ndiagne Diop monsieur le maire monsieur le député maire l'honorable Ndiagne Diop di ziar Waly Ndaw ak ñi àndal ñëpp ay Papa Ndiaye Sam Gueye mhm. Gala di ziar nag waa Medina bi ma juddoo màggee fa yaroo fa waaw rii kaanante ak Gueule Tapée macha allah ñëpp waa Fass rëbës di ziar suñu mbokku taalibe yëpp ku lim da ngay juum mm-hmm. di ziar waa soppe Papa Kara xam nga ndeysaan feccum liir bu neexee moom day jaatee te damaa bëri nday bëri ay baay <laughs> bëri ay mag bëri ay rakk moo tax foog ma ziar bu baax di ziar waa Tëngéej ak zone 7 bi yëpp dëgg la zone 7 commune zone 7 bi yëpp mm. tund jandeer bi yëpp maa ngi leen di ziar ku lim daal da ngay juum di ziar waa Medina di ziar sama mbokk fi fi ma jógee mm-hmm. mooy sëtu maam Njagandir yëpp waaw maa ngi leen di ziar bu a baax ndeysaan ak fukki pénc ak ñaar yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax yow yow lébu nga yow ñoo bokki maam lëg daara sunu maam lootu lu doyul waaye boo ne bambi loolu sama xel day dem ci baaxkat bi Pape Keita moo njëkk rek ci juróom-ñaari teere may ma addina Serigne Saliou Bambilor boo fa demee ay hectare laa fa am te jëmm jooju rek ma ko teralee ngir jëmmi Serigne Saliou ci sama grand théâtre ba ma defoon en 2016. Pape Keita loo dund doyul yàlla na sa jàmm tudd Bambilor te sama xeet du dem ci yow ndax teraanga jag ma fa defal yàlla sa jàmm yàgg papa ñu bëgg xam lii kañ nga ci dugg ndax bi ñu la ràññee léegi ci clip bi nga xam ne mooy Ayaso daan ak tey mën naa ne bu ma tee ñetti weer jàpp juróomi weer ca layam papa ci booba la tàmbali carrière bi wala carrière bi yàgg na de papa day doog a feeñ loo gis rek moom mu hmm. jékki saay neex loolu amul. dëgg la waaw nit moom da ngay commencé booy dal. da ngay hmm. commencé ci alif bu nekkee ci hmm. arab. bu nekkee ci français da ngay commencé ci A B C. dëgg la ñëw bay mën a liir mën a bind. mën a jaxase mën a boole. ba yor ay dossier dëgg la noonu la demee dara xëyru rek sotti. dëgg la waaw daanaka fi ñëpp jaar. wala fi ko gën a pire sax. daanaka ah. ay ndongo daara lañu woon. dëgg la waaw ñu daan ñu jéng daan ñu def lépp. dëgg la comme ndongo daara yi. dem si daara ba wàccee alxuraan. Mhm. ñëw nekk booy naa dugg école. ndeysaan waaw xam nga ñëw nag bëgg Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. ndeysaan waaw lool macha allah moo ñu def lépp nu ñu mel. macha allah moo ko def. macha allah waaw di ziare suñu kilifa diina yi fi nekk. Mhm. mboolem suñu mbokku laayeen yi mhm. xaadir yi ñeseen yi tijaan yi. di ziare suñu sang yi seen comme ku mel ni seen Abdou Karim Mbacké borom makaarimal axla di ziar seen Babacar Mbacké mu kabaro. waa di ziar ñëpp daal ku lim daal da ngay juum. wax dëgg yàlla waaw noonu la demee daal ci benn kon daal mbir mi moom yàgg nga ci da ngay doog a feeñ waaye yàgg nga ci mbir mi boobu ak léegi ñaata album nga ci am wala clip. daanaka ku tedd ki dafa def ni mhm. boobu ak léegi benn son rek laa ci génneegum. très bien ayaa soodaan bii nii. très bien waaw ku tedd ki defal ma ci ay ndami ndam. Mhm. waaw bëgg nañ mu faw ko ko nag. da da ko romb da ko la jëm waaw ba gaay yëpp Mhm. di ziar tamit Alaaji Baye Fall dëgg la Alaaji Baye mhm. sam mbokk taalibe la moom ma doon baaxal genre moo daanaka mook prince bi benn lañ mhm. wax dëgg yàlla moom temps dafa xaw a jàpp liggéey bi moo ko kii ay Abdou Cissé yëpp naroon nañ ñëw mais dañuy liggéey moo tax waa Bambilor lañ ma leen ziar bu yor di ziar gars yi ma àndal ñoom Mamadou Ba groupe soppe fa ñoom ñànku ñoom Cheikh Mbaw gars yëpp maa leen bëggee ku daal da ngay juum ndeysaan kenam la jëm incha allahu rabbi sama rakk ji bul tiit bul ragal dara te xamal na day baax ah tubarkàlla macha allah maa ngi lay ñaanal nga yeggaleeg sa sago yàlla na nga yeggaleeg sa sago yàlla na nga yeggaleeg sa sago tubarkàlla bëgg naa xam it tubarkàlla macha allah sa digganteeg programme yi nan lay demee. ñi bëgg jot ci yow fu ñuy jaar ak nu ñuy def parce que tey gis naa ay soppe yoo xam ne ñi ngi lay seetaan à la télévision te am nañu yéene bu ñu anniversaire nga ñëw ñii am nañu bu ñu mariage nga ñëw ñii am nañu yéene bu ñu ngénte nga ñëw ku bëgg jot ci yow ak sa orchestre bii nu muy def. waaw da ngay da ngay daal di woote rek. Mm-hmm. contacter uh, joxal numéro bi. waaw 78. 461. 64. 31. dëgg la boo ko contacter rek gars yi moom ay Baye Fall lañ. dinañ ci mm-hmm. jàpp bu baax a baax. dëgg la waa ànd ak waa groupe Aya Sodaan ñëpp. Mm-hmm. waaw ñu yëngal ko. incha allah soobee yàlla. macha allah. ñu yëngal nax yëngal mën ta ñàkk tubarkalla jërëjëf numéro baa ngi noonu ku ci wootee tubarkalla macha allah ñu indil la orchestre bi en live cantal la ba mu neex. di nuyu waale xaadim seen mi jaar fii. ah tubarkalla la dëkk daal. ndeysaan mënuñ ñàkk mënuñ ñàkk mbokki Bambilor la. waaye ma gërëm bu baax sama rakk ji ndeysaan allah macha allah waaw mais noonu la mais noonu la il faut gars jàpp il faut gars jàpp ma yëgal leen ne xaadim borom Lansar broderie mi 71 39 77 505 71 39 77 505 71 39 kooku mooy xaadim borom Lansar broderie moo jaar ci sañ-sañ wi nag ma tàq ba yàq tubarkalla xaadim loo dunu doyul yàlla sa jàmm yàgg waaye nag tubarkalla mënuy sama yaay sama xarit borom mbur kooku mooy nday caam chéri cubb nday caam chéri cubb loo dunu doyul yàlla yàlla guddal sa fan te wéral say cër bu baax a ci liggéey bu doy waar ñun ay magam dañ ciy jàpp ñun ay magam dañ ciy dugal suñu loxo ndax doo jën ndox la te mbokk ndey kuy jur Matar Mbay moo Modou Mbay Alaaji Bekaay Mbay moo Modou Mbay ñun ñëpp Alaaji Bekaay suñu baay kon tey doomam ci lu mu laal ñun dañ ciy dugg ba tax la pamaana sa xel dal ngir jëmm ku tedd ki rek dañ lay jàppale par force ñemewuñ ko bañ ndax suñ bamba waaye rawatina nag suñu rek jee dugal loxoom ci yow jàppal na ñi ngi ci sa biir ñi ngi sa ndeyjoor ñi ngi ci sa càmmoñ ñi ngi ci sa kanam ñi ngi ci sa ginnaaw borom sax dafa ne man lam yaskuru naas salam yaskurullah ku gërëmul doomu aadama doo gërëm nit dëgg la moom dafa nekk sama mag mhm. beneen mu nekk sama mbokk taalibe dëgg la am na loo xamante ne moom bu mhm. dama daf ma ciy jox ndigal daal ma koy jëfee waaw wax dëgg yàlla loolu tënk na lépp sama kilifa la daal daanaka moom ñoom prince mi yëpp samay kilifa la wax dëgg yàlla man maa ci gën a tuuti ñoom ñii ñëpp dañ may digal may def wax dëgg yàlla na liggéey bi sax Cheikh Yérim liggéey bi rafet na on est trop content et trop fier de troit on est en direct sur la 2STV mais on te remercie sunu xol seet na ci yow jàmbaar nga ndaanaan nga liggéeykat nga gor nga borom jom nga yàlla yàggal yàggali yàlla yàlla yeggali jërëjëf Tange mais mon ami mon policier <laughs> yàlla jàmm yàgg yàlla jàmm yàgg yàlla jàmm yàgg sama xarit baa ngi noonu ay eh, waaye sama alpulaar bi lu loo dund doyul yàlla sa jàmb yàgg yàlla sa jàmm yàgg yàlla sa jàmm yàgg nickel mais nickel mon ami kontaan naa. yaa ngi def lu rafet xam nañu 2STV kenn du am di waxee 2STV mooy tele boo xamante ni macha allah. si wàllum culture ak cosaan ak aada ñu ngi def lu rafet di gërëm ku baax kooku di El Hadj dañu dañuy wax tey ñun suñu àdduñu fu ñu toll bu nit yi gis ñu xam ñu El Hadj Ndiaye ak Mariam bi la Bokar la ñu ngi koy ziyaare baax di feddali ko leer suñu diggante ak moom jërëjëf li ngay def rafet jërëjëf Nikel ñoo far ndeysaan suñu bokk la suñu nawle la ñoo bokk liggéey bi su la 2STV ñàkk bu ñu ko gisee ñu sargal ko Papa bëggalaatal soppe yi ci mbaax ci Ahmadou Borom Jaam ñi sëñ Bamba bismillah salli ala muhammadu أشكر ذا العرش المجيد شكرا يا ربي من المزيد مسلما على الوخيد بكالكلي بامبا نانا شكرته إس حسني خدمة الله سني ذا خدمة في العلن له وفاق بامبا نانا له خطاب داعية بما يحب Bamba nee na ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ashkur sayana bil muntakhal mutarami Bamba nee na sayyiduna mujammalo Usmana man harhadalo wa huwa izan yuratilo kitabu nurayni bunafan sayyiduna mujammalo Usmana man harhadalo looy daam ki taw bamba wa fihi jaalil wasan baabul ulumi wal xatan abul sirafil Cheikh Kara dunu la gëm di gëm keneen dunu la xam sa waay du xàcc jëm feneen sa diine na xam di gëm keneen xaaj ca jëm feneen muy màgg cerno borom daaru dunu la gëm di la xam di xam keneen ay waay sa waay du xaaj ci jëm feneen sa diine doy na xar nu bee yallaahu bil mustafa sindindi allahu wa bi xalilika ibrahima yalla oh, wa bi عبرة واو وبخليلك عبرة وبكليمك موسى صالح قدير وبشعيب وإسماعيل يا الله وبشعيب وإسماعيل يا الله لا لا لا لا الورى وبسليمان نوح يونس اليساهي وزكريا يحيى هدى الله وزكريا يحيى هدى الله بكر وعيرهم من أنبياء ورسل الله كيلا من أنبياء ورسل الله كيلا وبملائكة رن ثم زبوتهم Jibrila summa be meka ila yalla oh Jibrila summa be meka ila yalla oh وصاحب النفخ إذ رافي لقب دار وقي الخلائق عزرائيل يلا وقي الخلائق عزرائيل يلا وبصحابة ثم الأولياء ما ولا ملنا من الأخبار الله ولا ملنا من الأخبار الله Mustafa ma ne woowe Yaasin gëjoon naa waye ngir rek ci taalif te sax seeni baay ferul baasin fa Yaasin su booxun waay xudoo sunu Soodaan gumbay xelleer yi sax bi palam ci Yaasin palam tooban nekkoon jaayil du taalif xelleer war la yàpp njaajaar fa yaasin wallaay ndaama di sooru ñolooru ku dangat xanaa dafa reep am dafa reere yaasin ku dëkkale bamba ak sëriñam dafay nar ndegee jafandar ci seefu ko mbër fa yaasin saaju ko aajoye fajuko aajo yi fajuko aajo yi murid yi daw araamul ku mën na ko def si peesu ko wóor na yaasin ku xam bay way yow na way gën ji yoonen xam-xam ba leer na ba sar ca yaasin Sëriñ Tuuba na man sama geer samay way déglu gewal bu xol ba tilim fa yaasin Sëriñ Tuuba na kuy taalif na taalif ci saxaaba yamba waliwu yamba ci yaasin ku wayte wayo man daf ni waajuma taak aw way na war lool na la aljana faw yaasin mi le tax man mi le tax man mi le tax man ah. ma dib gewalam ci baatin di way Cheikh Bamba mbër ma fi wuutu yaasin borom wataaki safaafa yaasin yonen ku dem fa mu soppi la soppi sawtur ñu naan la alaaji ngay kunu baal fa yaasin juddoom ba rafet na kookoy gën ji yaasim amul ji arab xuraysin xam na yaasin aka neexoon dey aka neexoon dey tey nga ma am angaari xaalis na kon ma ni meng dem ziyaare yaasin di gonta ka xëy di gonta ka xëy ba faf dee di dox si doj di xuus ci ndox ba yaasin di romb yi gaar di nooti jaas ba jitta di tànku di dox yóbbu Fuuta Bawal fayaasin wallaay mi le jaal wallaay mi le jaal wallaay mi le jaal wallaay mi le jaal jaral na ma war fafal naaw waroom awiyoom ya sànni ma bomba yaasin wax leen yaasin wax naa yaasin wax leen yaasin wax naa yaasin Baye Samba. le 21. tey le 21 samedi le 21 décembre damay dem Bambey. waaw vendredi le 27 décembre damay dem Ndar incha allah. incha allah waaw le ñu ngi dem Gorom 1 di woo waa Tundu Jëndër gi yëpp tamit ñu ñëw. waaw concert jërëjëf sama rakk ji loo dunu doyul yàlla na yàlla guddal sa fan te wala say cër jërëjëf Amadou Kouyaté le grand caméraman merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Prince yàgg xale yi nga àndal sa naw la yooyu yàlla na seen jàmm yàgg yàlla na ngeen dund yàlla na ngeen wér Sidi borom Bantamba loo dund doyul yàlla sa fan tawra di gërëm waa 2STV gépp ku lim juum yàlla ñëpp am jàmm mbokk yi jërë ngeen jëf lu baax bu doon doy doy na bu yàgg fii la ñu koy yemale ba vendredi prochain incha allah jaa ngeen jëf imam réalisateur mag bi loo dund doyul doomu yaay Abu Pam Modou technicien vidéo kontaan naa ci ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm Moustapha ci son bi tubarkàlla macha allah lamp gay ci produit conviction bi lu ngeen dund doyul na seen jàmm yàgg njabootu 2STV yi maman Marème Ndiaye sama yaay sama xarit sama xol maman je t'aime beaucoup. waaw Baye Wade loo dund doyul di la sant bu baax Baye Wade ah jaajëf merci beaucoup merci beaucoup jaajëf sama gars yi